anta alqawiyu alladi qawwaytani biridan fi sirri waljahri ya dal amri yallaahu sëriñ bi ne ko suñ boroom anta yow daal alqawiyu yaay aji dëgër ja alladi ka nga xam ne aji dëgër ja nga xam ne qawwaytani yaa ma dëgëral biridan ànd akuk ngërëm fi sirri ci lu nëbb wal jahri ak ci lu feeñ yaa dal amri yow yàlla yow mi borom mbir yi ak ndigali yaa allahu yow yàlla anta yow matinu yaay aji taraja ak dëgër alla si xam ne xadd kunta lii nekkal nga ma xadd nekk nga lii di ma ñeel bi mu naan ànd ki xéewal ak i la ma doon bëgg di ko wut wala tuwaj wala tuwajjihu tey doo jëmale lii muy jëm ci man al makruha la bañ lañu ñu sib ya allahu yow yàlla gis nga foofu ni mu fi nuróole alqawiyu ak almatin nga xam ne ñaar yëpp day tegtale kartanuk suñu boroom akuk dëgëram suñu boroom yow mi nga xam ne yaay alqawiyu yaa ma ba ma dëgër nga boole ci jox ma ngërëm loolu def nga ko ci zahir def nga ci baatin yow it boroom yaa ma euh, yaa far ànd ak man yaa far ak man sëriñ bi day faral di waxe noonu waxoon na ko alquran kitaabu rabbi kaana lii wa kuntu wa bi maana suñ borom yaa farak man te lépp loo xam ne lu ma naqari nga dàq ko mu sori waaye lu mu bëgg di ko wun nag nga ñoddil ma ko anta yow daal alwaliyu yaa aji méngoo mbiri jullit ñi allasi ja xam ne laa abtaxi du ma sàkku mukk badalan ak wottee bii ci moom wa nekk nga lii di ma ñeel bi taamini ci ak wóoluloo yaa allahu yow yàlla anta yow alxamidu yaa aji doylu ja aji sant ja allasi ja nga xam ne wajjahta lii yaa ma jëmale ay xéewal bila gururin ci ludut ak waru wa gayril makri ak ludut am pexe yaa allahu yow yàlla suñ borom yow mi nga xam ne yaay alwaliyu yow de doyloo naa la doyloo naa la du la changé ak dara du ma la weccee ak dara maanaam du ma nekk ci dara di fi bàyyi yàlla yàlla rek fakun bi rabbika al muini zastiaan wa in bi gayrihi istaanta laa tuaan yàlla moom dee ko jàpp rek bul ko weccoo ak dara ndax heure boo ko fa bàyyee dem ca leneen loola du la amal benn njariñ moo tax nga defal ma sécurité ba dara du ma mën a yàqal suñ borom nga xam ne yaay yaa ma jox ay xéewal yu doy xéewal yooyu de nekkul ak waru wala ay pexe waxoon naa bu dee yéefar am na lu ñu yore lu xaw mel ne ay xéewal nga di leen ñee lool ñu mën a am teraanga adduna lool waaye loolee de du xéewal du teraanga loolee du xéewal du teraanga ndeysaan boo jàngee euh, qaaruun inna qaaruuna kaana min qawmi muusa danga ci xam dara ndeysaan wa aataynaahu min al kunuuzi ma inna mafatixahu la tanu'u a usbati ulil quwa alal jañ ko joxoon caabi ya rek caabi ya ka daa ubbi waxuma alal ya de caabi ya ay ponkal ñoo ko daan yanu buñ ko masaan di yanu nag nit ñi di ko di ko ñee waaw yaa layta na misla maa utiya xaaruun aka neexoon ma am li xaaruun am innahu lazu asin asim xaaruun mi ndeyam liggéey na de loolu lañ doon wax ndeyam liggéey na waaye ba ko yàlla di suruxal ci biir suuf jekk-jekk rek ngay suuf si rek mu surux moo alalam jëpp mu dugg ci biir boobee day wax dëgg yàlla xam nañ ne ndekete loola du woon teraanga du woon liggéeyu nday waaye ay ay jaay rek la nag yàlla moo leen doon jaay kon léeg-léeg nit ki am lu mel ne ay xéewal euh, di mooy yàlla borom say xéewal di gën a yokk hmm, bay boo nga ragal lool xam na loolu pexe la mooy noonu ñuy def jinax buñ ko bëggee jàpp mooy tegal ko gerte teg ko fiir ga mu defee na dañ koo bëgg fekk ne yoo yéene wuñ ko lu baax dañ ko bëgg a jàpp rek wala ñu def ko pitax ngir bëgg koo këppatal wala yu mel noonu aw rab kon nekkul ne ak jay la wala adduna la déedéet sey xéewal rek la Sëñ Tuubaa boo xool ne ko yàlla defee woon ñëpp di ko wut si ca njaaram ja nga xam ne giléem yi dañuy yeewe addi yi ñu koy juug fu ne nit di ko andi te fekk moom soxlawoo ca dara waaye daa dem ba yàlla nangul ko di ko ko won nag dara ko wan as lëf rek ci àdduna yaa muxsiyal xalqi yow mi nga xam ne yaay aji takk mbindeef yi yàlla rek moo xam mbindeef yi xam nuñ toll mën leen a takk nit ñi rek kenn xamul nuñ toll waxantuma ak mbindeef yépp ñoom xorondom ak ñoom bëgg suukar ndeysaan ñoom fel ñoom ŋar ñooñu nga xam ne daanaka doo leen mën a gis ñoo ñëpp yàlla xam nañ nuñ toll wala asiyaay ak mbir yi jumlatiha mboole seen yow de kafayta ni wala ba kafayta fegal durama lori la nga xam ne ahsayta takk nga ko xam nga ko yaa allah yow yàlla suñu boroom yow mi nga xam ne yaa mën a xam lépp xam ni mu toll te ku dul yow mënu ko ah yow day ku xereñ nga moo tax mbir yi yi nga xam ne kenn mënu koo takk ba man koo xam yow yaa ma musal ci seeni lor yaa mub de xalqi yow mi aji sos mbindeef yi yaa man yow buur bi nga xam ne laa tuwajjihu doo jëmale lii muy jëm ci man maa laa uhibbu lu ma bëggut raditu anka man de gërëm naa la yaa allah yow yàlla muidu yow mi nga xam ne yaay delloowaat mbindeef yi ahmada ahmada awdin xam naa di ma delloo gën gaa can gën gaa rafetuk delloo gën gaa sant ak delloo xuttalii wamman wammatal nga ma karaman teraanga fii kulli shahrin lool ci weer wépp nga ma ko defal wa yawmin ak bés fii ka ci yow yaa allahu yow yàlla bokk na ci turam yi al mubdiu ak al muid ci alquran yow mi nga xam ne yaa sos mbindeef yi jëlee leen cig ñàkk andi leen cig am jëlee leen cig ñàkk indi leen cig lan indi leen cig am yow moom yi day yaay ki nga xam ne doo jëmale mukk man doo jëmale dara ci man loo xam ne loola gërëmuma ko tànnuma ko kon nag loolu mat naa sant maa ngi la ci sant di gërëm yow mi nga xam ne yaay delloowaat mbindee fi ginnaaw ba ñu deewee ginnaaw ba ñu deewee yaa leen di delloowaat ñu mel na nañu meloon nga dekkil leen di leen laaj seen jëf maa ngi la ñaan yàlla man su boobaa yàlla nga ma delloo gën ngaa rafetuk delloo da nga womatal ma ay teraanga wala bokk yow suñu boroom bés bu nekk ak weer wu nekk yaa ngi ma ci defal ay teraanga yu bari mux yi yow mi nga xam yaay aji dundal ji bi xayri ci ngën gi dund waaw wala neexee nga nattale fi maa ngi lay ñaan ngën gi dund juttali tabe nga ci man juttali may nga ma abad faaw mux yi yow mi nga xam ne yaay aji dundal ok juttali may nga ma abadan ba faaw bi xayri xayaatin ci ngën gi dund bi xayri xayaatin ci ngën gi dund kon da ngay dellu ci ginnaaw ba tey fa ñu waxoon muidu ahmada xawdin nañ ko nañ ci jaaraat kon da nga naan muidu yow yàlla mi nga xam ne yaay aji delloo yaay aji delloo jaam yi ginnaaw ba ñu deewee nga delloo leen dekkilaat leen xuttalii akay ah matal nga ma ahmada awdin gën gaa rafetuk delloo maanaam moom buy dekki gën gaa rafetuk dekki ànd ay jëf yu baax moom lay dekkiwaale am na ñoo xam ne seen dekki yàlla nañu ci musal kon xuttali ahmada kon day nekk mafulun bii eh, karaman nga defal ma ko lool rek ngir ngir sak baax ak sak teraanga boo ñëwee ci mux yi gi nga ne mux yi yow mi nga xam ne yaay aji dundale ji jutta tabe nga lii di ma ñeel abada ba faaw bi xayri xayaatin ci ngën gi dund falaka kon ñeel na la de sukuri samak sant bi safil umri ci selluk dund ga yàllaahu yàlla mu ne ko yow suñu borom subhaanahu wa taala bokk na ci turi al muhyi kii dundal maa ngi lay sant ndax defal nga ma ngën gi ak dund mooy bu ma nekkee ci addunay dund bu ma faatoo nekk ca barsàq ba tey di dund xeetu dundin woowu moom euh, leeraloon nan ko ci ginnaaw le suñ borom leeraloon na ci alxuraan ñi nga xam ne dañuy lan dañuy jihaad nañuy dunde ginnaaw ba nga xam ne dañoo génn nañ àdduna nii ci saayir yaa ma yaa ma defal ngën gi dund kon nag maa ngi lay sant tey it sellal sama dund ba lépp rafet kenn mënu cee am dara lu muy xebet lu ñaaw ta loolu lépp yow la ndeysaan mumiitu yow mi nga xam ne yaay aje faate suquta wommat nga mawti samak dee li li daa ko ca noon ya wala hum ñoom noon wala boog wa suquta màng nga lahum jëm ca ñoom jëmale ca ñoom makaarihi samay mettit fit daare ni ci àdduna ak àllaaxira yaa allahu yow yàlla yaa xayyu yow aji dund ji te doo dee mukk ah, di samak cant wa shukri ak samak ngërëm ma ridaaya ànd ak samay ngërmande maan mboole seen xus nan ko jël min yee jëlee ci man doona suxtin ci ludu ak sàññi mooy ak mer min ka gu bàyyi ko ci yow ya allahu yow yàlla fële na ko suñ boroom subhanahu wa taala yow mi nga xam ne yaay faat yaay faat yi man de samak faatu danga koo jël jox ko noon ya samay naqar lépp nga womar ko jëmee ko ca noon ya man mu mucc loolu noo ko mën a déggee bokk na ci li ñu ko mën a déggee mooy lan mooy noon ya fi mu toll nii ndax yaa ngi leen ndax yéen a leen di dégg mooy bañoo deewee rek jeex na am na jox xam ne ñu teg lu ne lu naqar lu metti lu ne teg nañ ko sëñ Tuubaa lu ne teg nañ ko ko waaye nag ginnaaw ba ñooñi ñu bañ génnee àdduna sëñ Tuubaa génn àdduna kan lañ ci konne di ko tudd di ko tagg di seet ay mbiram di ci fàttali ko mooy sëñ Tuubaa kon moom mi ngi dund ba léegi ñoom nag kenn tuddatu seen biir kenn xamul sax seen bàmmeel ndeysaan kenn xamul seen bàmmeel ñu ngi noon kon dañoo dee ba na wet mboolem loo xam ne samay naqar la da nga womat jëmee ci ñoom ba léegi mun ne ko yow mi nga xam ne yaay kii dund dund goo xam ne ak dee du ca tegu na la wóone sama santu xol muy alhamdu ak cantuk làmmiñ mu di ashukuru wala cantuk jëf samay ngërëm lépp maa ngi lay ñaan yàlla na ko yàlla na ma ko nangul jox naa la ko jox naa la ko yàlla ma ko nangul nangu goo xam ne am mer du ca du ca ànd xayuumu yow mi nga xam ne yaay taxawe say mbir alxayuum mooy koo xam ne eh, soxlaalut kenn dara léppam mën na koo defal boppam allahu laa ilaha illa huwa al xayul qayuum nga xam ne alxayul qayuum nga xam ne ñëw na ñetti yoon ci alquran ci ñetti barab xad xutta wommatal nga ma maa la nga xam ne kuntu nekkoon na naa atlubuhu daan ko sàkku te nag bi xayri kasbin ci ludul ak fàggu ilal jannaati te loolu day wéy ba àjjana ya yaa allahu yow yàlla aw salta lii eggale nga ma ci sa bopp waajitul wala salta lii eggale eggale nga ma eggale nga ma ci yow yow yàlla maanaam yàlla moo ko eggale ci yàlla dallani allahu muhammadi wa xaadani muhammadun li samadi gannaaw mu ne dalla ni allahu alallaahi yàlla ci boppam moo ma tegtal boppam kon àggale nga ma ci sa bopp waajidul asmaani waajidu yow yàlla yow mi nga xam yaay aji amal yaay aji joxe al asmaana njëg ya duuna ana in la woon ñu dagg in gi ci ludut coona lakka ñeel na la al wujudu ak am allësi ga nga xam ne baana feeñ na lii di ma ñeel yaa allah yow yàlla mu ne ko suñ boroom subhaanahu wa taala yaay alqayyuum suñ boroom lépp lu ma daa bëgg daa ko mébét daa ko wut yaa ma ko defal te moo ne day benn coona wala genn fàggu defuma ko ca loolu lépp ci sax mbaax la te loola day sax samay xéewal ak lépp lu ma bëgg yàlla ni ma ko defal day wéy ba àjjana suñ boroom yaa ma eggale ci sa bopp yaa ma jox njëg ya njëgee waxoon naa la ko mooy lam doon jaayanteeg suñ boroom suñ boroom fay na ko ko suñ boroom ci ak mbaaxam inna laa xashara min al muminina wa amwaalahum bi anna jan na day jekki-jekki rek jël ay jaamam ni leen eh, xanaa bëggu leen ma jaay leen nangam waaw te moom kat moonu moom moom lépp moom la ñuy waaj a jëf waaye ci mbaaxam kaay leen ma jaay leen ajjana jaay leen sama ngërëm lu ngeen ma lu ngeen lu ngeen a joxe comme njëkk man da ngeen joxe seen bakkan ak seen alal lépp ngeen def ko ci yoonu yàlla te kat loolu moo nu ko joxoon loolu ak mbaax rek la kon loolu xeetu waxin la waaye suñu borom du jënd ak a jaay kon nag la ma jaayante woon ak yow jox nga ma njëgga te nag àndut ak benn coona suñ borom yow de sak am lu leer naññ la man ëmma dara lu ma ciy xebet wala di ko sikk sàkk al wujud yaa du yow mi nga xam ne yaay aje tedd ja yaay aje tabe ja bu la neexee ijaal niya yàlla nag ma def addaarin adduna ak alaxira mu'taliyan may aji kawe di aji yëkkatiku rek waaye nag bi xëy kibrin ci lu dul ak rëy rëylu wa ujbin akok aaw rabbi yow saa borom yaa allahu yow yàlla yaa waaxidu yow mi nga xam ne yaay kenn képp kese dongo ijaal niya maa ngi lay ñaan yàlla nag ma defal yàlla nag ma def ad daaray ni adduna ak alaxira mun faridan mais aji wéet maal mun a ànd ak i xéewal ak i mébét bi asisin ci ak tedd nga rek eh, ci sa tedd ak sa eh, màggaay min ka gu bàyyi koo ci yow yaa allahu yow yàlla suñ borom yow mi aji tedd ja di aji tabe yàlla nag may yëkkati def ma may ko kawe waaye nag bu ma ci gis saa bopp wala ma ci naw samay jëf gis ki lépp loo loo kawe kawe rek yow del toroxlu bul gis kawe ga boo gisee ne kawe nga rek tabarkàlla loolu moo la la ñu tudde al ujbu moom la ñu al kibru mooy rëy rëylu wala boo geestu naw say jëf na nag yàlla nag ma yëkkati ba ma kawe waaye nag bu ma ci gis saa bopp de lépp naa ci gis yow rek yow mi nga xam ne yow rek yaay kenn yaay càppaacule yaay kenn ci sa kenn googee maa ngi lay ñaan mayit nga defal ma ay xéewal yoo xam ne dama koy wéete dama ciy beru nga ne kenn du kenn du am loola nga defal ma loo xam man dama ciy wéet defal ma ci ay xéewal akook tedd nga goo xam ne ci yow rek lay bàyyi ko lakka nekk na fi yow iltijaa yi sama wéeru bi ma ànd ak la nga xam ne ixtiira tànnees na ko lii di ma ñeel tànnal nañ ma ko yaa sama di yow yàlla kañu kama jëmale euh, samay aajo waaw bishran ci am mbég bishran loola mu nekk am mbég li jumlati man ñeel mboolem ña nga xam ne ahbabta sopp nga leen yaa allahu yow yàlla suñu borom yaay sama wéeruwaay yow rek yaay sama wéeruwaay yàlla rek moo mat a wéeru alallahi falyatawakkalil mutawakkiluun ak almuminuun suñu borom yaay sama wéeruwaay yaa ma jox la nga xam ne yaa ma ko tànnalal sa bopp du man maa ko tànn te loola mu nekk loo xam ne am mbég la ñeel képp koo xam ne daf laa bëgg sëñ Tuubaa day mbégum képp koo xam ne yàlla sopp na ko ak ku sopp yàlla tamit danga ko sopp ardayta alak nga yaa qaadiru yow aji am jakartan kan nga alak al maxzuula kañu toraxal xam naa mooy seytaane kañu wàcc mundafian mu nekk koo xam ne dañ koo jañ ilaa siwaana jëm ci keneen ku bokkut nun feneen lay jëm kon nag làkka ñeel na la ci loolu at taxmidu sant ko yaa allahu yow yàlla naka suñ borom yaa ma toroxalal seytaane dàq ko mu daw ba xaw ma fu mu jëm waaye jëm siwut ci ñun loolu nag ak cant war na ja razaqtani yaa ma wërsëgal razaqtani wërsëgal nga ma alxajja aj màkka waaye nag tayyan ci ak taxañ rek la anta yow nag muqtadirun aji am kartan nga ci am doole nga ci def loolu maxal jiwaari yaa ma wërsëgalit ànd ak dëkk ak yonante bi sallallahu alayhi wa sallam wa zawrin ak siyaare ko fii ka ci yow yàllaahu yow yàlla fii ci àdduna day jotumaa dem di aj jotumaa siyaare ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ci zahir waaye fa yow nag defal nga ma fa ak aj gu ñu nangu aj goo xam ne da nga taxañ aj goo xam ne da nga koo taxañ mooy loo xam ne nit ki li nit ki war a jël temps di ko def mu xaw a yàgg moom ñu taxañal ko ko mu nekk ci diggante bu gàtt yàlla ajal ko fi nee na loolu kat day nuru lu xaw a jafe waaye nag nee na bul fàtte ne anta muqtadirun suñ boroom kat ku am kàttan la kenn du wax ci moom naan loolu daa jafe daa def nangam déedéet suñ borom it defal na ko mu dëkk ak yonent bi sallallahu alayhi ko li mu bëggoon ci zahir mënu ko am saa borom defal na ko ko ci baateen moo xam nag nam ko ko defalee anta yow suñu borom al muxaddimu yaay aji jiitale ja yow rek yaay jiitale kon nag xaddim nii yàlla nag ma jiitale xunaa fii ci àdduna waxaadan ak fële. ci yowmal xiyaam xalaa kathirin ci lu bari min al axyaari ci tànneef yi yaa allahu yow yàlla anta yowit al mu axiru yaay aji mujj ja maanaam ñëpp dañuy dem bàyyi la fi azhabta daq nga al ida noon ya wa madaw te ñu wëy ilaa siwaanaa jëm feneen fu bokkut ak nun maxal xisyaane ànd ak ko toroxal ànd ko gecc yaa allahu yow yàlla suñ boroom yaay al muqaddim yow rek yaa mën a jiitale képp ku jiitu yaa ko jiital maa ngi lay ñaan yàlla nag tànn jiital ma ci àdduna ak àllaaxira ma raw ñu baree bare ci ñi nga xam ne ay tànneef lañ ay nit ñu baax lañ suñ borom yow yaay ki nga xam ne yaay fi mujj yaay aji mujj ji nga xam ne doo fi jóge mukk yaa ma dàqal samay noon ñu daw jëm fa feneen fu bokk ak sama wàll nga boole ci nag toroxal leen ba ñu torox ba na tot wa innaka naka yow daal al awwalu yaay aji njëkk ja te tàmbali woo fenn ijaal nii yàlla nag ma def hunaa fii ci àdduna wa gadan ak ëllëg yowmal xiyaam fi saabiqiina ma bokk ci way jiitu ña bi fadlin ci ngëneel min ka goo xam ne day tukkee ci yow yaa allah yow yàlla suñu borom yow mi nga xam yaay al awwal yaay jiitu wal al awwal wal axir jàngoo ci alquran yow moom i maa ngi lay ñaan ci sa jiitu googi yàlla nag ma def ma it ma jiitu way jiitu ña yàlla nag ma def ma bokk ci way jiitu ña ba jiitu leen loolu nag xam naa ne sama kàttan mënu ko sama jaamu yàlla mën naa am mënu ko ku lottu laa ci waaye ñaan gi ma koy ñaan dama koy ñaan rek ci say ci sak mbaax rek subhanahu wa ta'ala